سوق من يمين إذا كتبت اهتز عرش الملكي واهتز بالتسبيح كل ملكي زنت مكاتب تدور بين العرش والكرسي تمحو الميناء مد لي الله بحرمة النبي ما لا يراه أقرب أو أجنبي asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar ci weeru màgg wi ñu nekk muy waajtaayu màggalu Touba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar fas yéene dikk ak yéen ci jumaay Touba ak li ci aju rawatina yi nga xam ne moom la sëriñ bi di tere ci biir jumaa ji ak li wër jumaa ji sëriñ bi dafay tere képp kuy jaay ci jumaa ji ak li ko wër njaay mu mën a doon dañuy tere itam oto yi nga xam ne dañuy yeb sobe moo xam ay oto vidance la walla ay charrette li wër jumaa ji nañu ko moytandiku dañuy tere itam njaay mu mën a doon ci wàllu ay xarfa fuufa lu mel ne ay béjjën walla ay téere wala lu ko niru loolu itam dañ koy tere ci li wër jumaa ji dañuy tere itam géew diiwaan yi ñuy def di waxtaan ci li wër jumaa ji loolu itam dañu koy tere dañuy tere itam lu mel ne wecce muy manki ma ci misaal nga joxe ñaar téeméer ñu wecc la jox la téeméer ak juróom-ñeent fukk ci lu dul sa coobare loolu itam dañu koy tere kuy wecce nanga nga weccee rek te yàlla tax lépp lu la nit ki mën a jox ci tey bakkanam mu jox la ko waaye du doon loo xam ne luy sartante ak moom la loolu itam dañu koy tere dañuy tere itam jaxasoo bi nga xam ne mooy am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi ci biir jumaa ji ba ci pénc mi nañu ko moytu lu ñu man yii daal mooy yi nga xam ne moom la sëriñ bi di tere ci jumaa ji te teg ko nag ci loxoy ay ndaw muy daa daairatu muxaddamatul xidma ngir ñu sàmm ko ngir nañ fexe ba jàppalante ci ak ñoom ba loolu sëriñ bi tere ñu moytu ko kenn du ko gis ci jumaa ji ak li ko wër ñu ngi leen di ñaanal màggalu jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.